salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci 2STV la première chaîne de télévision privée du Sénégal duma ma conférencier waaye toog naa ci table bu ñuy tuddee yàlla ndax bëgg leen a jottali kàddu Seydina Limaamu Laay ak jàngaleem sallallahu alayhi wa sallam kon gis ngeen dañu nekk ci salle boo xam ne ay jigéen rek lañ ko fekk mu fees ko dell li ko waral ci koor la ñu nekk amul benn événement bu exceptionnel lii day am lu faral di am la ci weeru koor gi fii ci Cambérène tey nag ñu seet ci ki nga xam ne moom la ñuy wax. Cheikh Mbacke Laye ñu tuddee ko euh, muy di doomu Cheikh euh, Abdoulaye mi nga xam ne moom moo di xalif général euh, des Layènes ñu am mbégte lool tey seet si ko ngir waxtaan ak moom ci kan moom mooy Seydina Limamou Laye kan mooy Seydina Issa Laye mbooleem sénégalais yi nga xam ne dañu mel ne man novice ci mbir moomu toog seen kër ils n'osent pas demander xamuñu. te ñemewuñoo laajte ndax dañu am ay mbir yoo xam ne def dañ ko ciy dégg te comprendre uñ ko quoi de mieux que dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor xam-xam boobu xam loolu laaj leen ko ngir ñoom it ñu mën ñoo indil ay leeral ci yenn yi loolu moo waral tey encore plus euh, version bi ñu defoon alxemes bu jot ñu daal di dellu si tey fi nga xam ne moom moo di Cambérène fas yéene waxtaan ak ki nga xam ne moo di Cheikh Mbacké Laye turu yi sax war na leen a mën a wax lu yaatu lu mu mën a dogal ci diggante këri diine yi Cheikh bi nuyu nañ la ziar la te di la bàyyi nga nuyoon teg sunu ay téléspectateurs. si di bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil xalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabiin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan ci yàlla mi am jàmm yàlla nu boole defal jàmm di jéggaluwaat bu wér a wér ci toog gi ñu toog ci kaw toog ak yow xëy na lee li ñuy liggéey rek moo waral loolu waaye bu lépp fayee dañu yeggaat suuf def la nga suñu sang ñu du si ay dongo képp ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax di la jottali mboolem siyaaru équipe bu 2STV ak ñëpp ñu ñuy seetaan waaw li ñi nit ñi xamut te bëgg koy xam man nag mën naa la yor laaji dof waaye xëy na mu jariñ ñu bari kan mooy Seydina Limaamu Laay ci yow boo ñu ko doon tekki Pape Seydi laaj nga ma laaj bu am solo boo xam ni sawar naa ci tontu ko waaye jëkk lépp ginnaaw bi ñu nuyoo jullit ñëpp ziyaar xalifa bi Seydina Baye Abdullah di sunu kilifa di xalifa jullit ñi ñaanal njabootam gi yëpp ziyaar leen waaye ñaanal kilifa diine yëpp ci réew mi ziyaar leen laaj bi nga laaj kan mooy Seydina Limaamu laaj la bu am solo Seydina Limaamu yonent la boo koy tënk mën na diis ci ubbee waaye mooy Muhammadu Rasulullah noonee nga ma ko laajee nem kan la dama lay wax ne mooy ci feeñoon ci mag juddoo fa feeñ fa woote fa dugal leen ci lislaam bi muy am juróom benn fukki ak ñett malakul mawti ñëw jël ruuxam coow la bari saaba yi jaxasoo pour ñoom sang bi du dem ba jaasi génn kenn robu ko mu am ñetti fan ñu teg ko ba ñu juboo ca waxtaan ci ni Babacar moo ko war a wuutu ca la ñëw nag di ko jullee waaye bi ñu koy jullee amuñu imam bu jiite nga xam ni ni nu aada woo di def néew bi dañ koy teg imam taxaw mbooloo mi nekk ci ginnaawam loolu kenn def ko yonent bi moom daal dañ ko teg rek góor ñi ak jigéen ñi ñu ràng ku ñëw rek julli ci moom noonu lañ ko jullee moom nag waxoon na ci dundam ne jombanaa ma am ci biir bàmmeel ñetti fan beneen riwaay bi ni ñaari fan loolu nag mu ni dinaa jógaat su ma jógee dinaa teg si tànk foo xam ni ku yàlla baaxewul doo ko xam loolu nag dafa mel ni pour ma leeralal la kan ci gàttal ala kulli xaalin làmmiñ dafa am gaaf te gaafu làmmiñ ba ca gën a rëy mooy nga waxal yàlla lu dul dëgg Mm-hmm. alquran ne wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadiban aw qaala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay mu ni kenn gënul mën a tooñ koo xam ne dafa wax yàlla du dul dëgg kon nag ki ni yàlla mu yónni su fekkee ni du dëgg sosal na yàlla kon nag nañu téye loolu benn ngi noonu ñaareel bii yonent bi wax ci xadis ne ku ma waxal lu dul dëgg dinañu séndal sa toogukaay ca safar man kazaba alayya fal yatabawwa maqaadahu min annaar loolu yonent moo ko wax kon nag li ma bëgg wax rek diis na ci yenn bopp yi yow nga osé wax nu kan muy Seydina Limaamu alayhi salaam ma ni bu mu jaaxal nit ñi limaamu bu fekkee ni dafa waxoon ni beneen yonent laa dina diis mhm. ndax bu boobaa dina nu jaaxal ndax Muhammad mooy xaatamul anbiyaa wal mursalin moo tëj yonent yi yonent dootul ñëw ci ginnaawam loolu juboo nañ ci maa kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyin kon nag ñun ñëpp nangu nañu ne ki mujj ci yonent yi mooy muhammad waaye muhammad moom moo dellu si waat ak dellu seen na moo jaaxal jàmm waaw ndax dafa diis bu mu diis xam nga lu tax warul diis sunu boroom dafa am lu mu jiital ngir bëgg ñun ñëpp ñu inspiré ñu ci xam nga li mu jiital la mooy dafa bind ku amul baay amul yaay téel lool yéemu ci kooku mooy sunu maam Adama Adama waaw yemu ci mu bind ku am baay te amul yaay awa muy maam mhm. yemu ci mu bind ku am yaay te amul baay muy Seydina Isa mhm. yemu ci nag mu bind ku am baay am yaay muy ñun kon lii boo ko tegee ci sa kanam am na lu dul a jaaxal mhm. ndax yii yépp ay kéemaan la su fekkee ni kéemaan la da ngay xool ki ko def kan la ki sa ki ko def kattanam dafa mën lépp ba tax ñu ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla mën na la ma yóbbuwaat la nag ca isra ak miraj subhaana alladi asra bi abdihi layla min almasjid alxaram ila almasjid al aqsa ban laa yaba jeex xam nga loolu jaaxaloon na sax yéeféer yi ndax sang bi une heure du deux heures du matin dafa jékki-jékki rek ni cëpp ci fajar bi mu ni waa mag dem na Beyti Maqdis jóge naa fa dem naa ci asamaani juróom-ñaar waxtaan naa ak sama borom loola nag yëngal nit ñi même ñu gëmoon sax jaxasoo nañ mhm. ca biir jaxasoo ba nag am benn waay bu ko xool ne ko yow li nga wax ëpp na am keneen ku mel ni Babou Sidi nee nañu seeti Babacar xanaa nag moom li buy gëm sang bi yëpp ak li mu koy bëgg nag lii moom buté bu ko déggee nag dana soppeeku mhm. waaye xoolal day wër Babacar ba gis ko ne sa waa ji waxati nag mu ne lu mu waxati mu ni nee na dem na bayti maqdis te xam ngeen ni bayti maqdis digganteem ak Makka sori na ay fan walla weer lañu koy dox moom nag nee na bii dem na fa ñëwaat dem na ci asamaan yi juróom-ñaar dellu si na ko mu ne man lenn rek laa bëgg a xam mu ko loolu bëgg a xam mu ne ndax moo ko wax waa jëy waat naan moo ko mu ne ko dëgg lu mu dëgg وما ينطق عن gaa yaa ngi ko wër rek di ko seetaan di ree nag benn waay na ko waa léegi yow da ni dem na ci asamaan yi mu ni waaw dem na xam nga kon ñoom seen xel ci naaw la ñuy <laughs> mu ne ko yëkkal sa mu yëkkal droite mu ne ko yëkkal bi ci mu ne ko déedéet ñaar yëpp laa wax yéen bi ne ko damay daal mun kon demul <laughs> yow sax boo doon buñ la séenoon sax ngay naaw gëmuñu la waaye xam nga loola mhm. la tax mu jaxase leen dañu dégluwul wax ji subhaanalladi asra asra la wax xam nga ki yóbbu boppam ak ki ñu yóbbu boppam mhm. yonent bi yóbbuwul boppam ki am doole moo ko yóbbu léegi nag na mu ko yóbboo day xel day lott ci xalaat ko day mel ni wasia kursiyu samawati wal ard ni yàlla toogee ci siisam ñun xam nañu siis xam nañu toog waaye na mu toog ak xamuñu ko loolu sonal sa bopp kon nag ki am kattan ndëgëm moo may ñii mu may li mu leen may mu doon kéemaan waaye ñu xam ni moom mën na ko ndax kooku jomba na ci moom mu jël Moustapha mu doon yonent bi mujj yónni ko ba pare nag nekk dama bëgg nga delluwaat deuxième mission deuxième mission boobu yàlla jagleelu ko ci àdduna kenn ku dul ahlu Sénégal mu ñëw nag yow li lay jaaxal moo di li sang bi moo xam ne ma nga màgg ku dem Medina gis bàmmeel boo ñëwee jàmm lay ñu ne nga gisal jàmm bànneel xam nga day mel ni ci sa gàtt xel yaa ngi daan ñaari jëmbal ay waay benn jëmm la waay benn jëmm la paap dina la jox benn firnde bu palpable te kilifa diine ci réew mi da ko dund muy maam Ahmed Cissé bu Pire di bàyyi Moustapha Cissé ambassadeur ancien ambassadeur yàlla na ko yàlla yërëm ak Maodo Cissé mhm. ak Khalifa Bafali waaw Pire waaw Pire du nu amoon wuy di wutu de maam Maguette Kaye mhm. ku ko doon denc soo bay say itam muy ñetteelu xalifa bu limaam loolu ñun fekke nañ ko mu demoon piir sans borom jël bu ñoom ñuy xaar ñu indi leen ko góor gi Ahmed Cissé rob ko piir xanaa coow am day seeti coow moom mu ngi ànd ak suma bayra mu ngi ànd ak sama bay Chérif Abdullah Xalil waaye mu ngi ànd ak mag yi diine yi ñu dem nag bu ñu àggee pour tënk fii sa question mhm. dañu àgg rek Ahmed Gurdiou Ahmed Cissé gis ne ñii dañu mett parce que tàgguwuma leen rob seen soxna fii mbooloo mi bari na nii mag ñi toog rek góor gi Ahmed Cissé dëdd jël kàddu ko ne dafa am loo xam ne ku ko def fow nga layal ko mu ni Seydina seen soxna dafa génn àdduna ma rob ko fii te ma leen damay ñaan nag ngeen may ma wax lu tax mag ñi ni teg mu ne ana magi dëkk bi ñu ni ñu ngi nii mu ni ndax yéen a fàttaliku picc mi daan jóge penku bu fajar di jot mu tiiñ dëkk bi bu sabee ñëpp yeewu ngir xamal leen waxtu julli jot na ndax yéen a ngi koy fàttaliku ñu ni ko waaw waaw picc moomu day ku yeewoo ci dëkk bi rek xam nga ko mu ni leen limaamu la mooy jóge màkk jiite leen ba pare buy jàll si nag ñëw yeenu soog a jàll yoon ñu ni leen kañ ngeen mujj gis picc ma kañ ngeen ko mujj dégg ñu ni teg mu ni mille cent neuf bi limaamu génnee àdduna la ñu gëj picc ma limaamu noonu moom nag moo tëdd fii muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun nag taar mhm. ñu gëm ko ñu gëm ko ñu gëm ko te laaj gëm eh, eh, allah je pense que waxtaan bi am na solo tey leer na. lan moo nekk diggante Yoof ak Cambérène lu ñu xamul ba tax Seydina Limaamu mu wër leen ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ba pare meññi ku ñuy wax seydinaa Issa ñu naan moom mooy Jésus Christ lan moo am Yoof lu amul feneen. li am yoof li ñu xamul mooy yàlla ku muy yónni daf lay tànnal xeet wa ngay juddoo mm-hmm. démb daf ko ko tànnaloon ba muy dem nag leer gi la yebal moom ak leer gi jëmm jooju ak leer gi ndax fu mu dem leer nga jógee màkk rek dal fii ci Mbor xuntu moomu ngay gis fa def na fi junni at di xool nag ci ban xeet la war a wàcc ba yàlla wërsëgal ko moom moo tànn yaay ji koy jur tànn bàyyi bi koy mu tànn bàyyam ñu koy maam Alassane te téere yi dañu waxoon turu bàyyi ba fële mooy turu bàyyi bi fii turu yaay bi kazaali ah sang bi nag mm-hmm. judd na bu juddoo dafa am lu ñuy tuddee irhasaat irhasaat mooy xale bu judd rek wuuteeg ñi mu maaseel ñëpp moom nag dafa judd rek wuuteeg ñëpp am na yoo xam ne kenn du ci dugg mm-hmm. léegi nag ci wuute ga li ma la mën a wax daal mhm. bu dëggee tànkoo bu dëggee sobe moo xam dem àll ganaar la bi gën a néew day jooy waaye li maamu lu moo jooy fekk raxasuñu ko rek du noppi mhm. ndekete sobe sa la léegi nag mu ngay màgg ñu xam ko nag ay waay xale bi waay xale bi baax te li ma lay wax bu fekkee dangay ngay werante mhm. da ngay def mu xaarana mooy lëkkale lëkkale mooy seet démba ndax dafa waxoon ni may démba may tey bu ngeen gisee ci man jikko ak jëf ak wax bu wuuteeg mumul rek bàyyi leen lii la waxoon léegi nag nga def lëkkale léegi nag mooy màgg ca loola dem nag di dem géej di ndàpp waaye lu géej gi kaayu su duggee rek jën ñoo ko naan gàppoo paa bu ak gaalam du yóbbu ndawal këram lépp daf koy may bu xëyee di wër kër yi di nuyoo xale la dafa yàgg rek bàyyam ne ko limaamu demal nga gorali ma ay matt ay bant yu mu téye sàqete mu ñëw ci àll bi rek yàgg fi lool ak sémmiñam ba yàgg fi lool dellu si ak ñaxam andiwul dara limaamu ne waa ah, bàyyi ba ne ko ana lu ma la yónni woon moo wax ne ko bàyyi man mënuma gor ah lu tax mënuma gor mu ne ndax man garab bu ma jub rek nga dal di muy sujjóotal di ma raama da ngeen defe ne amul woon dellu Moustapha alayhi salaatu wasalaam ah dafa fekk waa ji toog rek mu ne ko yow gëmagoon ni ba tey man la yàlla yónni mu ne ko lan mooy sa preuve ak luy sama preuve mu ne ko demal neel garab gële Muhammad nee na nga wuyu ko waa jërëjëf mu ne ko jubal rek mu dem na garab gi Muhammad nee na nga wuyu ko garab ga naan cappi cappi cappi way xa qawman jafaru nabiyan bi ardin alifatu tibaabuha wa ziba waaw Pape. macha ba nag maa ngi tëj foofu. daal di kàddu <laughs> eh. ba nag léegi. wax na li na bàyyi ba lool bàyyi ba lool di xam li xew ah yàlla dogal nag ci yéen ma ndéem jël ba waxtu wa jotee quarante ans la am léegi dafa waxoon bu ngeen gisee ci mën ci ko jëf wax. kër yi ba mu amee 40 ans la taxaw ni yàlla na yóbbu kii nag jàngul kële jàngul moom mii jàngul nañ ma wax ci réew mi ana jàngal li ma waaye bu fekkee ni nit a ngay jëfandikoo xelam programme bu sell bu rafete nii ko jàngul teg ko war na mu tëjuwaat xool lii lan la lii lan la jooju nag du dara lu dul muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tëdd fii ci yoof yoof boobu mu tëdd nag nga xam ni fa la juddoo nga xam ni fa la woote nga xam ni fa la reñaane xam mu wax dafa ni démb tuuma la tuumaa nga ca woon mooy ba may reñaan ba tax coow mhm. démb tuuma ndax guddi bi te yàlla moom la neex yi nga moo gisaat yonent yi bëccëg la ko def ñëpp teew Seydina Ibrahim bi mu koy sànni ci safara waa mu naan safara yu seddal bëccëg la gaa yi taxaw Seydina Moussa bi muy xar géej gi bëccëg la Seydina Issa bi muy dekkal bëccëg la lu tax nag Mouhamed mi gën ñëpp mu bàyyi ba ñëpp tëdd mu ne ko kaay demal ma ci asamaan yi mu ñëwaat mu indi coow limaamu ne démb guddi la tuumaa nga ci waaye tey bëccëg laa fiy jóge xoolal mu tëdd fii ci mbaaru ngapparu fii ci yoon ngapparu jékki-jékki rek gisatuñu ah lu wax lu lu lu waxkat ya wax waxkat ya la coow la bari mu ñëw ni ma borom nuyu na kon ci kàddu boobu nga xam ne wax na wax ju rafete noonu ci feeñal ni mooma ca na nag bi mu wootee ay bokkam ñoo taxaw te yonent bu woote say bokkaal yi jëkk na mu amee woon demi bokk yi nag xeexuñu ko ngir bañ ko këliyit xeexuñu ko woon ba mu feeñee màkk ngir bañ ko xam nga lu tax dañ ko xeex parce que xamuñu ko ba pare nag teraanga ji mu yor ji mu yor kawe na kawe na boo xam ni ñoom seen dimension àggu fa àgg nañu sax ba yebal ca bàyyi tëxal ba ne ko nee ko bu fekkee ni dafa bëgg alal nga jox ko te mu noppi. Mhm. wala boo su fekkee ni dafa bëgg nguur ñu fal ko waaye su fekkee ni dafa feebar ñu yóbbu ko faji ko bàyyi ba dal di def délégation dem ca sang ba sang bi ne ko bu ñu jëloon jant ko ci loxo bi teg ko ci loxo teg ko bi ndox mu bàyyi limaamu nit ay bokk ñu ne ko limaam bàyyi ñuy jóge walla dellu bàyyi ñuy jóge siin dell bàyyi ñuy jóge jolof dell te nga ñëw ñu jubaale laa buur te fekk bokk booba bokk yi ñoo ko boole jeeg buur ne ko kii woote ci si ci yoo seen nguur gii la bëgg a fay mhm. kon nag wax leen léegi nag ak a neex parce que xam nga tax ñu yéeg mhm. mooy moom dafa wax na xam na lii xew film bi xam na ndax démb dafa dawal film bi xam film bi li ci des ba ñu koy dàq muy génn mag di gàddaay dañu dañu dem ba mu dugg ci xaaru Abi Suur ca dorog ba mu fa duggee gars yi tiim nañ ko mënuñu ko gis ñu matt seen baaraam ne ay buñ ko jàppoon ah buñ ko jàppoon baax na nañ dem aaxiru zaman nag mu ne di ngeen ma jàpp sibiral li may wax léegi nag bi ko bokk yi boolee ba ñu jëli tubaab ba tubaab bi ñëw dégg nga la imaam saxiir wax ku wet di laajal gaaya doom iñaan di jéema fay la taal te tàkk naa Limaam ni leen yàllaa ko taal te tàkk moo yàlla taal bu mu taal parce que yi hmm? ndox du fay na ko ndax ndox fay na ko ndax wax bi bari fay na ko xanaa xamoo loo gën a sotti ndox mu gën a yokk loo gën a ëpp mu gën a yokk loo gën a coow mu gën a yokk ñu boole kaag tubaab banaa limaamu naa liggéey di xool li moom a kon daal gànnaayam bari na ñoom lañ loolu la ñu wax dañuy wax ni limaamu ay ngànnaay la léegi limaamu yorul jaas yi fital yorul dara limaamu ne samay ngànnaay mooy ñaan rahmaan yor ngànnaay te rasul ne ngànnaay yéen jullit ñaan ilaaha limaamu ne leen man sama ngànnaay bu kenn ku dul yàlla gàññaa ngay gën di jaxase nasaraan ngay gën di tase mu naan leen bu ñu tasee dootul tuddati rabbana loolu la tubaab bi wax fekk na bàyyi yi nee na woon ay taalibe ku fi ñëwoon ni damay rey itam bu kenn jóg bàyyi leen maag rabbana xam nga tey leader boo fi gis mu ngi wut garde waaye limaamu ne bëgguma garde bàyyi leen maag yàlla ba mu waxee saaba yi loolu saaba yi loolu suba saaba yi dañu bañ ñu naan ko yaa دنوم لون المعملا ما توكلت على الله وكيل معك ربنا gis nga koon wéeru gëm wéeru ci yàlla moo tax film bay dox ba yàlla dogal na mu julli ba yegg rek takku saan dal wax ne yonent bu nekk ñeel na ko mu gàddaay dal di tànn ña mu tànn ngir ñu ànd mu départ Yoff dénkaane nag saxaaba yi séddale leen ndax ma ngay dem ne diw yow wóolu naa la téyel ma diw mbooloo sàngam téyel ma diw tudd seeni tur jaar fii ñëw ba ci armeelu Ndakaar yii tey ñu tudde Baqiya man xaw ma lu tax sax ñu tudde ko Baqiya itam ku dem Medina fekk fa bàq yi waaw ki ne mooy Momadou nga ñëw tabax armeel fii ba pare tuddee ko bàq yi loolu mbir la ah Idrissa sama ma baax par sanga ba départ dafa ñëw ba ci armeel yi julli fa jullit néew maa la ko wax jullit néew mag ñi ne te limaamu lii lan la mun Cheikh Ibrahima loolu fasanteeg moom kóllëre kóllëre bi ma fasanteeg moom njabootam lay dundee nii 1975 lañ ko dem nañu fa pour noter histoire boobu armée bi waaw ku mel ni Baye Kébé mu ngeeg Baye Kébé Baye man Abdoulaye Kébé mu wax histoire ba ndax dafa demoon kenn ngir lu mag ñi waxoon la mu dem di ko topp mu dem fekk naka mag ña waxe sa nga mën a départ jaar Cambérène bii tëblul bu baax maa ngi lay wax démb gars yi dañu waxoon ay buñ ko jàppee ay buñ ko jàppee léegi xoolal jaar na fii ñëw Cambérène bi mu ñëw Cambérène bu waa Ndakaaru meer bu waa Malika meer bu yëmbal meer bu kenn meer ndax dafa ëgg si ba Cambérène taxaw idde sa maam taxaw te boobu àll la dara nekk dara nekk Cambérène fii mu ñëw taxaw teen ne mag ñi ndax déggu leen gone ya ndaw ya góor ya ya jigéen di tudd turuma boroom di jël turu limaamu di ci dugal mag ñi ne limaamu dégguñu dara mu ni fii fii ma taxaw muy të muy pii bi fi la ñuy rëkki yi ma tax waa Cambérène seen baat neex lay ndeysaan ah Ido ah. sa maam départ na jaar sunu jaar kab du biche xamul fu mu jóg ma nga ca gàddaay guddi la ëgsi ci àll boobu ci Mali jékki-jékki mënatu la dox lay xool ba mënatu la dox mu jékki-jékki ne ana Cerno Saar Demba Mbaay diw ma borom jënd la may tànk mënatumaa dem aw jaaral fii laa gis ku ñëw wax ma aw jaaral fii laa gis ku ñëw wax ma mag ñi tas xoolal bi ñu ñëwee ne ko limaamu gis nañu benn montagne boo xam ne garab moo ca sax ca suuf nag kana fa ne mu ni place bàngoo léegi nag guddi la ma ngay raam ndax mënul dox waaye maam umra fahum badrun nooru Momadou Momadou leer ya lay bàddoo nooru Momadou lii la Limaamu wax di dem ah mu ëgsi nag def na fa ñetti fan ci gàttal léegi nag juróom-ñaari dëkk yi fekk buur yebal na juróom-ñaari dëkk waaw léegi nag ñuy ñëw nag di wër limaam xam nga man tëbal naa la ba ñu ñëwee ca kër ga la fa xel waaye li wér mooy bi ñu ñëwee fii limaamu dafa tëdd ca yërmandeem ja mu yëg ni ñu ngi koy wër jékki-jékki mu dal di leen feeñu nee leen maa ngi nii ka jëkk gis limaam dafa ne limaam moo ngi nii rey leen bàyyi lay na teg ne ka loolu ka loolu ñu ni sëriñ tëngee mu ni déedéet bu sëriñ tëngee seytaane mhm. ndax sëriñ tëngee bañ ba dala metti mu nga toog ca lalam naawu sëriñ tëngee da boobu limaa moo ngi ci kër gi limaa moo ngi ci mu nga toog mu ngi ci bii ah am ku ne limaamu mbokk yi taxaw leen daf leen dàq limaam nga teg te mu nga sawaanu ba tey dugul mu ngay feeñal jàmbaar ji wan leen lu ma moo noonu bu jóg di la seet yow nga def nii di seet sa mel ni kuy lool faale woo nekk maa ngi nii maa ngi nii ba nu waxee loolu rek ci la nag euh, góor ga damay bañ a tudd ñu ne dirama wëli ne limaam ñàkk pexe moo tax ñu ñëw tubaab bi munu ërti pour ñu ñëw seet si la waaye lenn dinaa ko seet limaamu nii ndey ma gën suñuy ndey bàyyi ma gën suñuy bàyyi ca la limaamu ne ñokkal ne ka wax loolu ka wax loolu ñu mu ñu budd xaw ma kan waaye yow aw ma ndey gën sa ndey ma bàyyi gën sa bàyyi ñu ko diw ndax ma bàyyi sa ndey la jëkk jël xam ne du ci jur yonentam yàlla Muhammad bàyyi ko jël ma man limaam mais moo ngóor waa lu ngeen wax ñu ne ko buur mbooloo mu ne nan dem ba xam lu ma buur mën a ñu dem dañu ñëw fii ci aan fii julli jot bàyyi lay ne bismillah nu waajal julli am ñu taxaw ni ah lii nag occasion ndax kii kéemaan yi mu àndal ci bopp bi la ndax kaala ga ndax mosu ñoo gis boppam ñu ni ko xanaa kuy jàpp ah da nga da sa bopp nan ko yeeru rek ba muy masaa boppam ñu xam li xew lan la limaamu di jàpp di jàpp ba ci yàgg rek ba ëgsi ca masaa bopp rek kéwalu benn tànk ga dal di fëx dégg ngeen naka libaas ña wax xoolal mosuñu ko gis rek ñu daw topp kéwél bi mhm. bala ñuy yembaat la bàyyi lay jàpp bay ñaan léegi nag Pape Sidi yaa baax maam xoolal sa maam ne leen lu ngeen wax ñu ni ko tubaab mu ne nan dem dañu ko andi rek fii ci place de l'indépendance dañu toppatoo dossier yi ci saas rek ne dañ koy jàllale kan la àndal Tafsir Abdoulaye Diallo waa Ndar la bari woon doole dafa gëm waaye moom mbooloo mu mu fekk ni yàlla yónni limaamu boo bañee rek mu dóor la ndax dooleen kooku noonu la doon def moom itam <laughs> plainte yi bari ñu boole kaak moom léegi nag limaamu ma ngay dem ñi ko dëma ngay jooy dama lay wiiraan ni rek pour tëj foofu xoolal dañu teeral gaal bi tubaab yi ëgsi dugal ko ci biir ñi gëm ñu ngi jooy ñi wet bi ñu ngi reetaan ndax ñu noppalu ko doom ju boobu feek bàyyi naka noonu mag ak rakk tas na leen kon nag kii na sànq ji na dem rek xam nga lu limaam wax ne ñu ñi gëm su ngeen noppee gis gaal bi yàlla yóbbu ma boo dégg mu naan ba batu la sanga bay tàngo jaam ñaar la xool yey fuur waloon yey ñu ngay jooy rongoñ ya di tuuru nítorí wo rísí bí máa ń jà gíná òjò yọ yọlá òyà na bateau ba yaa ngi naan wala dana sànku am ku gis maam Seydina Kane sa bàyyi ngee ñu la waaye bi mu demee ba ca biir géej ga keroog lan moo xew gis nga yéen su ngeen ko gëmul atmosphère bi gëm na ko njàlla yeeg yi gëm na ko géej gën na ko mu ni keroog la géej sàbba aras yemu la seen pexe aras yëngu na limaamu ñëw na ba biir goro gii biir la tuddoo léegi nag dafa ñëw ba foofu ak seen gaal ga rek taxaw mënatuñoo dem pexe bu nekk jéem nañ ko jëli nañu mécanicien fu ne waaye mënatul la dem moo tax mu ne ba gaal gërëñi fa bi lañu jëm jaloore ba kon nga que message bi àggoon na waaye bi ñu ñëwee fii pexe jeex na léegi nag li maamu wàcc nag pexe jeex na ñu dugal ko gore paap bi ñu ko dugalee gore maa ngay daw ndax waxtu bi dañ ko dugal gore rek tëj ko bi ñu ko tijjee kànnaar bunte yi dañu xëy rek gis ko ci biti am ku ñëw ne leen yéen xanaa xamu leen kii batte yi ko gën a ñu faf nag kaste néeg ba ñu xëy ci gis ko ñu ne nañ ko xiifal ñetti fan joxuñu ko mu lekk ñu dem togg bi tey boo xam ne yàpp xaj ñu andil ko limaamu joxoñ ko rek muy mbëb yàpp wa dimbal mbëb ñu ne mbiram lu jékki-jékki rek xëy rek gore di baaje indi lii dafa jar a dafa jar a xam man mi ma nekk xoolal ba gore mu ngi baaje di def nii il bi ci boppam ñépp ni sunu waa ji daal bi mu fi duggee ba léegi amuñu jàmm ñu jékki-jékki rek gis benn ñey mais lu palpable la ci mbedd gore daw di yëngal gore ñu ñëw song nekk limaamu ñay ñii ci biir gore fu mu jóge limaamu ne fa la jaar ba dugg boo déggee boo déggoon mbaas ñam ne ko maam demee taar bi kon kiraamaan mu ni yënguy nawet jub na noor boobee ba tey kenn du ba yaay keroog ñay wuree keroog ñayu weex tiital na waa biir idda léegi nag am na vingt sept jours xam nga lu ñu lu ñu mujj a def ñu jëli ay labbe France ñu indi ngir ñu xool bi ñu duggee xool li maamu mënuñu ko xool ñu dem jël seetu teg seetu bi di xool ci seet bu ngir xool li maamu bu li maamu ubbee yëpp ëlbatiku rek ñu daw ñu def seen rapport nag ne génn leen kii ndax doomu yàlla la buy mer yàlla di mer léegi nag si sang ba sang ba ah defar nañu néeg bi nee nañu dañ koy teral ba mu may juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ca la vingt-sept jours mhm. ca dañ koy jiyam jigéen ñi ran góor ñi ci biir góor ñi dañu ñëw di am póot si Ariette Sarr la tudd damay bañ a wax la mu door ndax tooñ baaxul mu wax si rek limaamu ne ko seytaane bi loo fi def yow fu ma dem nga fekk ma xoolal mu yokku naan yaa imaamallaahi kachartani ay limaamu wuñu nga sama sutur dal yàgga dee am benn jigéen bu koy xool naan moom la wala du moom ci xelam lay waxal de mhm. xelam lay waxal naan moom la wala du moom. ci xel mi ci xel mi. li maamu nekkam di seel seen mën a mën a a mën a. te booba bi muy jógee Makka di ñëw la ko miseel seen gis maam la ci Joseph Ndiaye mi nekkoon gone. Mm, moom Joseph Ndiaye. gàllankoor Joseph Ndiaye voilà. fii lañ ko roon. macha allah dégg nga léegi ah. maamam la maam miseel seen. maam miseel seen moom moom la amoon gore. Uh-huh. mu gëm bàyyi lay nag léegi nag trois mois jeex na. xam nga lu tax mu def fa trois mois Ablaye Diallo dossier ka mu àndaloon. Mm-hmm. ba mu matee mu di woon woon Ablaye Diallo du ma fi taxaw waaye comme que bala bala muy woote dafa wax dafa wax dafa wax ñetti at ñetti fan ah, lii ma amoon na démb. Mm-hmm. amoon na démb dafa léegi nag mm-hmm. ñetti at yi mooy bu wootee ba mu am ñetti wax tubaab yi li ñëw loolu dina am. ñetti fan yi mooy yi mu am ngay jóge ci Mali ñetti weer mooy gore comme que wax na ko pare il faut que ñu valider ko léegi nag ñu koy génn nag ñëkk a gëm ñëkk a gëm ñu ngi koy teer bokkoon na ca Thierno Mbaye Sylla Thierno Mbaye Sylla atte na ndakaaru ñaar fukki at ñaar jiite jàkk ndakaaru gi maam la ci Maodo Sylla ak ña ca wàcc leen gi di borom xam-xam di borom may mag limaamu waaye da ko gëm limaamu ba muy gisee moom boobu limaamu xale la muy àtte limaamu dugg ci saal bi xamul lu xew ba ñu lëñbatee ba mu xam ni kii la mu ñëw nekk kuy sa baay mu ne ko mu ne ko alasaan mooy sama kuy sa yaay mu ne ko kumba mu ne ko doom fasante nag yow kumbal bàyyi lay ne ko bul wax secret yàlla te jotagul loola mooy diggante Thierno cer Thierno mbay nag bi limaamu gindi waa Ndakaaru di ko teeroo ak saaba yi gëm ñu koy teeru ci waax bi ci la limaamu ànd ak ñoom nag xam nga lu xew mm-hmm. day dox ba ci yàgg na na lay lay lay lay lay rek lii rek mooy wax mu ne naan laa ilaaha illa laa laa ilaaha illa laa ilaaha illa laa sama ma ngi dox ci yàgg rek garab boo xam ni ceer yi branche yaa sax ci suuf nit ñi mën ci di toog mu jekk jékki rek taxaw ceer nu mbay taxaw mu ni mbay si la ñëpp eh, a tax ñu mbay si lu la ma boroom wanoon ci garab gi mbay si la fàtte mbay si la aw ci garab gi ne teg ñetteel ba mbay si la dellu su nekk li ma bi ma nekkee xale di jàng la ma haatifum tadammani dafa wax ak man benn haatif ne ma mbay si la xal seet ngaa toog ak yonent yàlla ci garab gi mu ni ko mbay maa ngi mu dem na kër Thierno Mbaye Sy mhm. foofee benn fanu gam la fa ëgsi ba ñu ëgsee ba dalal ka ba mu toog ci Ndakaar jékki-jékki dégg ñuy jàng bor ba mawlaaya salli wa bay silla li ma dégg lan la la mu doon loogu la mu doon bay silla nekk dañuy jàng burda mu ne la la burda mu mu ne la ne dañuy màggal juddug yonente bi mu ne bu dëkkee ma borom moo xaram léegi bu ñu xamoon ni ki ñuy màggal mu ngi fii xam nga loolu koon ñu ngi jàng foofa am njàng la def na foofu neuf mois kër Thierno Mbaye Sylla léegi nag jóge na kër Thierno Mbaye Sylla demul yoon fii la ñu fii mu ñëw nag ma tëjee ko dafa waxoon ne téere yi dañu ne Mahdi bi mënul am te àndul ak Isa limaamu moo jur Isa muxtaar moo dëkk fii foofu laay yëngal yow. boobu boobu bëgg naa ci ñëw dama bëgg téléspectateur yi ñuy seetaan rek xam ne ñu ngi jàng. yéen ñi nga xam ne maak yéen ñooyam mosu leen a xam lu mel ni toog leen des ak ñun ci 2STV yi ñu jàngal leen wax leen kan mooy Seydina Limamou Laye ak mbooleem njabootam li ngeen ci xam euh, mosuma ci xam li yëpp je suis très ébahi je suis très content kon nga xam ne ñun li ñuy def suñu sëriñ ñu am yëpp mën nañ leen jàppee ay sëriñ waaye Seydina Limamou kon moom moo njab boolem njaboote ñëpp donc c'est qu'on est en de loolu la ñuy jàng ci émission bi léegi nag beneen question bi ma bëggoon a am mooy àdduna bi yëpp évangile yi bind nañ ci téere yu mag yi bind nañ ci injil tawraat ba alxuraan ku ci nekk wax nga le retour du messie le messie est revenu est-ce qu'il est déjà là la question da savoir dañuy laaj ndax ki nga xam ne moo di Cheikh Mbacké lay nga wax ñu nan la Seydina Limaamu nekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare ñu annoncé ñu le retour du messie moom mu pare dellu siwaat juraat ki ñu naan moom mooy Jésus comment c'est possible loolu Pape ba tey maa ngi feddali rek ne maa ngi feddali rek ne maa ngi leen di feddali rek ne moom ma doy imaamu laay mooy libaas ba jàmm laay nag sang boobu mhm. mosul dañ ci benn fanu barab la taxaw fii ci yoon ne ajiboo dayla ajiboo dayla yof ni rek mu ni yaa ma'shar al-insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum ba mu agsee ci mu ko limaamu loo ñuy mu ngi jaamu luy yàlla léegi nag ñu ngi ko demee ñu ngi tudd ñoom ñu ngi mel noonu dañu waxoon ni nag Mahdi mënul am te àndul ak Isa léegi nag Isa moom di wedd bi taree mu ngi am mouvement li maamu ne ana Isa ma ndaw moom dafa doon wax mm-hmm. Isa ñëw mu yëkkati ko teg ko ci mbaggam ñëpp ngi toog mu wëndeelu man li may wax bu matul Seydina Isa mii sama borom dina ko fi bàyyi ba mu mat wuutu ma ci lii àggale woote in lam atimma risalallahi arsalani haza alhulaam yutimmuhu bila wulaam man li may wax bu matul Isa moo loolu kenn sañu ko wax sa doom ah lu dul ko xam sa programme. Mhm. léegi nag Issa nekk ak bàyyam fii dafa dem ba am trente bàyyam am soixante trois dal di woolu mam maamu jaxate ne ko ñaanal na ma dundal ñetti ndax dama wax ni bu tandu tandu su fekkee ni tandu am ni ñoo fi dàq tandu bu xam nga tandu tam mooy jéem def dara. Euh, ba mu ba mu ba mu yegg ci na ko bëggee waaw mu rafet mu am na laaj yëngu dàq lu tax. li tax dañu woon dañu woon téere yi ñoo wax ni limaamul mahdi buy feeñ. Hmm. ni ñoom la. Hmm. Mali hmm. saw bu sori. Mali ngi fi. Côte d'Ivoire ngi fi nu mu tuddati. Euh, ah Mauritanie ngi fi Gambie ngi fi waaye sori bu saw bu sori ba la wax waaye pour mu préciser ne ca ca doj ya xoolal ndekete fii la saw bi ya boo ko jégee Amérique ngay ni ko léegi nag li ma feeñ fii mu ne nag ca su géej bi lay dëkk xoolal téere yee ko wax ñun sunu bos ca tefesu géej gi lay dëkk mhm. mu ne buy woote dana am ñeent fukki at moom bi muy am ñeent fukki at ci la yàlla mu yónni mu ne nag léegi du fa jóge te isaa ñëwul bala muy dem isaa moo ñëw mu ne isaa moo koy jullee sunu bos isaa ko jullee mu ne bu koy jullee ci fanweeri at ñett ci la koy isaa am fanweeri at ak ñett jullee ka loolu nu mu mën a nekkee ci nii sang bi isaa ngi màgg maam Mamour ñëw mu ne ñaanal maamul nekk sangu àdduna ak àllaaxira yow la ñu yaakaar mu ne ma borom nee na baa ñaane mu nangu maam maamul dafa tiit ba jël loxo bi def nii ba mu ñaanee bàyyi lay génn ko maamul ma boroom nangu na ma borom nangu na dina ma dundaan ñetti at ndax ngir isaa ca waxtu woowu ca la provoqué isaa naka daxal maa wan ni daxaa màgg léegi ba tax ma la dogal ci ma kër uti uti teg baat Issa génnal wala ma génn kenn xamul film bi lu xew Seydina Issa dal di génn nga baal nga baal ma mais tàndu mun na am benn yoon mais mun te répété wu ci li nga ko waxee yëpp waaw effectivement moo tax ma ni bu fekkee tàndu am na ñoo fi dàq tàndu mais tàndu mun te répété wu mun na nekk benn yoon mais une fois bii nag moom dafa mat fukk ko sax <laughs> parce nii sa maam Seydina Issa uh-huh. léegi nag génn ndakaaru la jëkk a dem fekk fa ndawal bàyyi ñoo ñëw sa fii laa jël ñu ah sa bàyyi ko fii nii ne nee na bu la dem fàmm qu'est-ce mu jël bagaasam dem Tëngéej ak si Tëngéej fekkaat fa même chose bagaasam ñëw indi góor gi Mor Watt bi mu agsee ah, mu ne ko Issa fekk góor gi tànk yi dafa sew mu ngi tàllal tànk yi mu ne ko toogal ci sa tànk yi bàyyi yi mu seet ndax mat nga wala déet Issa xool mu ko toogal gaa yu baax yi toog nañ mu toog rek mu yëkk fël ko rek mu jub ñëwaat mu ne ko Issa boo dellu see ngay mat des na Issa dal di duggati gisaat gisee sama maam Maodo góor bu baax boobu boo déggee mu naan Maodo yi nga mel ndax moonu wan xóot bu mat sozawiyaam yi fil afaaqi lu wóor la maam Maodo ko war kenn du maam Maodo mu duggeeg Seydina Isa am na lu ca xew waaye xaju mhm. ba mu duggeeg moom ñu déeyoo ba muy génn maam Maodo dugal loxoom ca poos ba jël xaalisu ngor dugal ci poos Seydina Isa Seydina Isa ma nga fan la jël gàdda bouclé ba ma see ba gàdda bouclé coow la joon maam maamu yëpp rëpptal fasam dem jëli xam nga lu tax mu jëli mhm. maam maamu bi muy gëm si limaam mook Thierno Mbaye si laa ànd bi ñu ëgsee ba bàyyi laay wax ak ñoom béykat da ni Mamour yow dellu bu fi toog ndax bu njool may riñaan nga yëg maam Mamour nag moo tax mu rëppatal fasam jël say naay saa indi kat ngaa xam ci ginnaaw ci yow mm-hmm. yor ko fa nag ba mu ko fa yoree moom moom maam Mamour jaxate Seyna Issa nekk ak moom Seyna Issa nekk nekk ak moom Seydina Isa nekk ak moom Seydina Isa nekk ak moom xam nga ca nekkin na lii mooy moo mission Seydina Isa ma ngay jaamu yàlla di liggéey kon lii moon war jaamu yàlla liggéey waaye ñetti at ya mat na am na 33 ans mhm. jékki-jékki rek maam Mamour moo daan jiite jàkk ji Seydina Isa nekk taal bi mhm. waaye maam Mamour moo ni dañu xëy rek ma ñëw ci jàkka ji fa ma daan toog fekk fa Seydina saa mu toog Seydina Isa nee na ma itam ma doon taalibe toog ci ginnaaw maam Mamour maam Mamour nee na ma doon taalibe toog ci ginnaaw noonu rek julli jot mu julli ba yeggal Seydina Isa waxul ak kenn yor kurusam nga ne tekk rek man de xaw ma lu xew ak li ma yàlla baaxe maam Mamour nee na xaw ma lu xew dañu jékki-jékki rek ba naaj ba génne rek gis mbooloo mu nuyoo mu ni mu ni mu ni këllët ne lu ngeen may tàggati da ngeen may wax ne sama bàyyi dem na ñu ne lu ko xamal Seyna Issa imaam Saxir ne dinaa leen ko wax ruuga moo def jantu njolloor suuf ci Issa roya eh, si bi Issa roya ndekete bàyyam moo def jant ñëw suuf ci moom léegi Issa yàkkamtiwul teel lu baax li ma lay wax. démb ba dama la waxoon ne ba mu feeñee ma ñetti fan kendoo fii it ñetti fan kendoo ko xoolal Issa jël temps toppatoo liggéey ba ba ñetteelu ah ñaareelu fan ba ba muy jeex ca la départ te dañu waxoon téere yi dañuy wax ne. Isaa buy wàcc ci jamono juróom ñaareelu asamaan lay bàyyeeku ñëw ci suuf loolu la ñu bind léegi ndekete dafa laaj jéggi xoolal gars yaa ngi séntu rek boobaak léegi di ko xaar luñ ko mos a gis ah, ah juróom ñaari asamaan mooy juróom ñaari gaar Isaa ma nga départ Tiwaawoon Tiwaawoon ba Yaraax juróom ñaari gaar xoolal te mag ñi boobu seen habitude mooy caaro yi lañ daan teeroo gan li Seydina Issa mag ñi di ko teeroo caaroy mu ñëw ba caaroy ci train bi gis mag ñi mu ni leen isaam tey du isaam yi isaam yaraax mu ñëw nag yaraax gis labbe di defar seeni coor boroomi xam-xam lañu boroomi may lañu mhm. sunu mbokk yi ay boroomi mbir lañu ñoo ngay defar seeni coor isaam yi waa lu xew ñu ne nee nañu Issa tey lay wàcc juróom-ñaari yu asamaan maam Seydou xamul wax Issa mu ne kon ñun ñu tudde Issa nañu jaar fii boo déggee mu naan moo bàyyi la yara ñuy bàcce soo mu ñëw julee nga Isa ci tënk ca la ñëwee nag yoo bàyyi fi ñaari rakkam ba muy dem muy mam ma ñoo ci topp ci moom vingt-huit ans la borom may ya xoolal ba mu ëgsee nuyoo ak ñoo dugg nekk maam ngëy dugg nekk maam defarul génnaat woo ay rakkam ne lu xew sama ginnaaw fekk bi limaamu àdduna waa yoo fag mag ñi gëm ak dañu ne ku dee dañ lay jullee coow la ne ko ndekete dafa war a marqué ñetti fan ya mu amoon démb ca baax eh coow loola nag moo waral maam njoon génne jaasi yi comme na ma amoon fële na ma amoon fële ñu taxaw seen jaas ne ba kenn laal suñu bàyyi ku laal sunu bay te sunu mag ñëwul isa dinañu tàqale sa bopp ak sa dàq léegi nag laa indi daal ñu ni teg Seydina Isa ñëw déeg ñoom laaj leen ñu xew ñu wax ko ko ba fajar ga jotee Seydina Isa waajal bàyyi ñu sang ko teg ko fekk raam na ba tiim ko moom ba mu koy seet muri ko mu leer nañ mu ne bàyyi bi ngay dund li nga rafete bi nga dee moo ko dàq ñu sang ko ba yeggal nag mag ñëpp taxaw Isa dox dem bënd la ñëwaat te ay boroomu soixante-dix ans quatre-vingts ay punkal ñoo toog mu jekk-jekk ne eh ku bëgg jullee sa baay xaaral sa baay dee tudde li maam yow doom jëkkee jullee nga tudde isa ñëpp arrière mu ni ca la defe xutbam bu rëy ba ku fi ñëwoon ngir sama baay sama baay dem waaye ku fi ñëwoon ngir yàlla yàllaa ngi fi du ci na Babacar waxe woon fële na naan ku ñëwoon ngir jaamu Muhammad Muhammad dem na waaye ku ñëwoon ngir jaamu yàlla yàllaa ngi fi dugg jóg Seydina Isa ñëw ni ku ñëwoon ngir sama baay sama baay dem na waaye ku ñëwoon ngir yàlla yàllaa ngi fi dugg jóg dal di jullee baayam rob ka moomu nag laa wax ni man day maa ngi laaj waa adduna maa ngi laaj waa adduna man feeñuk limaamu li mu doon Momadou jaaxalu ma mhm. waaye ñoom bu ñu bëggee jaaxle nanu jaaxle ci Issa xam mhm. nga Issa suñu borom ñun ñoo jàng alquran ba pare wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin suñu borom moo ni rayuma ko salabuma ko waaw loolu suñu borom wax kon Issa moomu kenn gisul bàmmeelam waa léegi fan la ne sunu borom ni bal rafaahu llahu sunu borom ni maa ko yéegal waa fan la nekk ci yàlla loolu nag tey ba fii bay waxe yéen addunaa ngi xaar isa waxatuñu limaam waaye addunaa ngi xaar isa ci xaar bi ñu koy xaar nag yàlla dogal na isaa ñëw taamu ginnaaw bi mu xamee mag bug limaamu ni mooy mummadu ak cëriñ yu may yu rëy moom dañ ko wan yonent yëpp isaa ni sunu boroom boole ma ci kuréel sunu boroom ne ko ñaar condition moo am benn nga doon taalibe bi sës walla nga doon doom mu taal doon doom noonu mu nekk doom mooy taaw Seydina Isaa nag comme que xam na boppam xam na mooy kat mooy Isaa ibnu Maryam mooy Isaa ibnu Maryam xoolal ba fii may wax ak mu ngi wane ay kéemaan mu ngi wane ni man la xam nga keroog bi ñu nekkee ci acte bi 2016 mhm. euh, moom day wër ba léegi ñun fu nu nekk mu fekk na day wër ba ci yàgg bàyyi ba coow li bari moo tax ñii di wax ñun bu ñu leen tontoo ci façon yii nañ leen tontoo ci ragal yàlla ak jaamu yàlla ak sel macha loolu rek a iddu mooy wax ji gars yi di bàyyi lay di ñu sànni xeer dañu xamul waaye nun ko jëndee sunuy mag yu tedd yi nga xamante ni may yi nu am ñoom ñëpp dama ni dama ni mag ñooñu fa nu toll ci yàlla xam nañ li nekk fii te nangu nañ ko maa la ko wax ku mu sa dégg kaddu gu Sëriñ Tuubaa wax sànni ka fi na ma wax ku mu sa dégg sama maam Maodo lu mu wax ci lu ñaaw sànni ka fi na ma wax xam nga seen wax benn la mhm. dañu wax ni bu ñëpp meloon ni laayeen safara gent mhm. li mooy seen wax kon nag ñun la gën a neex Seydina Issa maamu Idrissa nii léegi nag jël nag naafal bàyyi ba 2016 coow li bari lool mu njëkk jëkk ni mu xëyee te fekk na ay ati at daana def loolu feeñ na ko waaye bii nag dafa bàyyi ba àjjuma dégg ngeen coow mhm. Pape Sidi moo tax ma ni babatin na gaañu gëm ña ñëpp tee gis ja si tuwul ni moom la Isa bi doonay maam li maam waaye déglu lii rek ndax Fassine yaa ngi may dégg xam nga ñëpp a wuyu si bi mm-hmm. xoolal ñi nëbbu ñoo ëpp ñi feeñ ñàkk xam dafa sonal ñu bari waaw dafa sonal ñu bari ñàkk xam ñi nëbbu dooni borom garab ñoo ëpp ñi feeñ te ñi nëbbu noonu la ñu war a nëbboo moo tax ma ni ñëw na seede wutu ji àggalay ah dem ñëwaat tas jëmmam dafa ñëw am pouvoir di tas dënnam bu feeñee fii feeñ fii feeñ fii ñëpp di ko xool loola nag bi muy dund sax da ko daan def mhm. da daan génn multiplier jëmmam fii fii fii boo jaaree fii mu jaar ci mbedd mi kar boo jaaree fii mu jaar fii kar la bu jëlee daan ne ne tëdd leen guddi dafa am boroom mbooloo xoolal bu jëlee dàll bu ko sànnee bàyyi li daa su leen nga paan paa xam ngeen ko moo yar mu ne sa maam bu mu sàn sànni dàll yi benn dàll ñun fukk la doon ñëpp lay dal. ah ah. wallaahi la abdi kon nag maam euh, euh, Pape euh, maam Sidi Ngom léegi nag mu sanc Cambérène. tampon bi may dégg ci moom nag. tampon bi. may <laughs> dégg nag. ah mais lii moo dàq cours nag parce que nii tampon bi day dëggal ba tey ni bàyyi laa yooyu waaye day dëggal ba tey ni Isa mooy Isa mii mooy ibnu Mariam déglul li ma lay wax mënuma tëb wax la datu voyage waaye ma wax la ci tegtal 1920 merci ci la réew mi aju woon bi ñu agsee Medinatul Munawwar di ziyaar Serigne Sadiq sëñ na ci yonent bi moo doon garde xëppoon ni ñu teewe nii ñu doon ay nit ñu ñuul te booba nit ku ñuul raar na aywa te booba nit ku ñuul raar na mu ni yéen waa fan ngeen ñu ni waa sawu jant mu ni damay laaj ana waa kër Ahmadou Bamba am ñu yëkkati ne ñu nii mu ne nag ahlu Tijaan waa kër Haaji Si am ñu yëkkati ana Seex Seex Saadibu am ñu yëkkati ana waa kër Seydina Isaa waxul waa kër dafa ne waa kër Seydina Isa fa sakata naas jamii kenn yënguwul ñëpp nag parce que booba laayante mm-hmm. ne mille cent noonu rek allah ji bàll si bi seet bu na bàyyi masib seet ñu ngay dégg mm-hmm. moom moo ni ci yërmande yàlla kattanam suñu ñeenti bët dafa daje naar bi ma xool ko mu xool ma ma mel ni rek dañ mel ni rek waxal ma ci sama loxo ma ni ko man de xam naa ko waaye dëkkuma ak moom ndax ndar laa dëkk mu dëkk ndakaar waaye bu fekkee ni yóbbante boo koy jox walla wax bu tegee ci sama loxo dina ci jox mu ne ko too tuddee mu ne ko balli si bi seen mu ne ko yóbbante laa lay jox yóbbante ba bokk na ci jal baaba yóbbante ba lu baax lu leer lay wax na ci jaaro xaqiqa bokk na ci yóbbante ba kabatu baax moom dégg bokk na ca yóbbante yooya tampon ba léegi nag dafa ànd ak tarjuma mu ni ko boo demee nga ne Seydina Isa bàyyi moo ko nee na ma jox ko mais lan la lan la xam nga man. Seydina Issa dafa bind lettre yónnee ko benn kilifa benn kilifa dañoo tudd tur nga yónnee dafa def famille Seydina Issa Ruuhullahi ibnu Imaamillah wax soxla ba. kooku liir leetar ba ree ne kii moo doon Seydina Issa Rohou Laye ibnu imaam yi wax ca lu ñaaw ndekete loola moo àgg ca Moustapha ba mu àggee ca moom Moustapha joxe ndigal ñu defar tampon bi mu ne ko boo demee nga ne ko waxatuma mu bind ci leetar naan famine Seydina Issa Rohou Laye ibnu imam lay yem fa nekkal na ci teg lii fa min saydina isa ruuxullaahi ibnu imaamillaahi na ci teg kullu imaamin imaamul xaramayn lii mooy tampon bi léegi nag tampon boobu dama lay laaj alxaramayni fan la am imaamul xaramayni fu mu ne xoolal mooy kaaba ga ak fa ñu ko denc moom mooy xaramayni mu nekk kulli imam imaamul xaramayni ñun defaruñu ko màkk la jóge déggoo imam saxin ma tëjee foofu ma wàcc ma wàccee foofu sama kàddu uh-huh. pour wax la ni mooy Isa imam saxir dafa nii euh, waaye wa jox na koy médaille allah ji bàll si ñëw nang roobu lay ngir kenn du yow makkaa jox lii kawe mu ni sëriñ Saaliw moo ma ko jox moo la ko jox nee na limaamu moo ko jox moom it munoon naa la ko jox samay yu rëy yi yéene eh Pape Seydi mam Seydi moom laa wax mam Seydi moom moo fi toog 40 ans ci bi ñu doon téere yi dañuy wax ni bu ñu ñëwaatee ci jamono 40 ans la fi def maam sëy bi wuutu bàyyam toog fi 40 ans. Mhm. nga 40 ans yi bi muy mag bi muy mag. Mhm. tubaab yi dañu ñëw xamoon nañ kan la. ne ko li nekk ci yow xam nañ ko dañ lay faj sama bàyyi moom a nekk li ne ma doom dama si booba sëñ Ablaye yi ci carte bi aussi mënoo egg si rek ne Abdullah boo yokkoon doo fi fekk sa baay sa baay lu xew mu ne Abdullah tubaab yi kat nee nañu feebar bu nekk ci moom mën nañu ko dindi mën ne nag bàyyi moom ba sama doom ñëw Abdullah loo ci xam mu ne ko bàyyi da ngay faju bàyyi ko feebar da ngay faju mu ne ko xalaas doom xanaa xamuloon ne ci ayu man doon rek laa ne mënuma sëgg sa xol ma doon mooy ki ko war a wut mhm. parce que yëpp c'est programme mhm. dégg léegi nag ca Ndakaaru ca la génn booba mag yi géey soxna yi jaaxle nañu mu jékki-jékki rek ne mul taxaw ci balcon ca Ndakaaru tiim leen ñu gës ni awaay njool a ngi waay mu muuñ muuñam nga ni laay ku muñ ba tey yëpp di nga tëdd adduna tëdd àllaaxira loolu nag beneen mbir la si nay sa dal di ñëw Cambérène gii ah, am na xul bi bay bay bay ñoom di dox rek mag ñi ay yàgg rek ñu ni dañ koy hospitalisé coow li bari mu woo sama ay seen maam ay seen moom yàq boo ko bëgg ñoo nekk ay tëb tubaab yi nee nañu dañu may yóbbu waaye duñ ma dee opéré nañ ngeen bañ bañ leen parce que secret yàlla bi nekk ci sama biir war nañu gis dañ ah ñu yóbbu hôpital wax wax nit ko ñu ko delloosee ñëwaat ci tubaab yi ñëw ne léegi seen matériel dañ koy transférer indi ko fii ngir faj ko ñu wax wax seen ay saa bay bi coow lu bëree Adolphe Diagne doomu Blaise Diagne mhm. ñu jékki-jékki annoncé ko ne sang bi day sa dooma lay seet ñu ne jàll si Adolphe heure si dal di nuyoo mu ne ko ah Adolphe sama doom da nga seet si woon sa baay mu ne ko mu ne ko kontaan naa Adolphe ne ko man kontaanuma ah doom valeur bu toll ni yow ñu war la mën a faj nga ni doo faju loolu moo ma moo ma naqari ma bëggoon nga faju mu ne ah, doom li day day programme yàlla hmm. programme yàlla la te na ci seen i mbokk donc bàyyi ma nii rek. Mhm. dal di koy ñaanal mu dem. léegi nag ndekete wax na wax joo xam ni kenn xamul day jaaxle nañu ah jékki-jékki rek malheureux moom ci ñoom fii ci kër gi. am dal di jël ruuj. bi ñu ko jëlee bi mu ko jëlee soo bàjjan mantulaay mooy yow di bàjjanu Astu bii sama rakk mooy yow dafa yuuxu sëy naay sànni xefeet dal di toggal allay waaye léegi woon bu ma fi jógee nii ngeen di des nga sama bàjjan boobu bi bàyyim génnee àdduna mujj gi ginnaaw lay doxe soxlaatul àdduna faatuwaat dañoo ma nga nële njabootam nga nële toog ci daara sama bàjjen boobu léegi nag ma mantu bàjjen mantu ba mu defee loolu ba Seydina Isaa jóg a toog dafa woolu maam ilimaan wadda di waa Gànjool fii mu ñëw mu ne ko Mamadou sa bay tafsir ndikki ak sa bay Ahmadou Bamba ñëw nañ fi léegi seet si nañ ma xoolal relation bi mhm. Serigne Touba seet si nañ ma waxtaan nañu ak man mhm. lañu daan waxtaan ak gars yi yàlla ya léegi nag kooku dal di dem timis nga rek mën kul mootu ñëwaat jël ruuga coow li na ko léegi nag Cambérène lañ koy rob Yoff lañ koy rob kan moo fi ne maam Joon ki ko coow li bari lool xoolal àgg nañu ba gas ñaari bàmmeel fii ci Cambérène gas nañ fi benn Yoff gas nañ ñu ngay xaar maam Joon sëñ Ablaye ñëw mu ne ko doom waxal fu ñuy def sa baay sëñ Ablaye sama baay yi baay yow koo ne aw ma ko kan jékki-jékki rek maam sax ndeng man sam mbéy nga la. ëgsi ak këkët la si nañu joor sang bi carnet bii kat si nay saa moo ma ko joxoon mu wax lu mu wax lu mu wax gaawal mu ni ko dafa waxoon ni bu fekkee ni ndakaaru la génnee adduna nañu gaaw jële ko fa waaye bu dee yoof la nañ ko fa bàyyi waaye buñ ko def ci wetu bàyyam ndax dafa rusoon bàyyam bàyyam rus ko nañ ko def foofu ñu wax ne mooy jullikaayu maam Ibrahima waaye mu ne bu dee Cambérène la rek la ko defee na xam ni dogalu moo dégg ñu naan waa Cambérène am ngeen ne baa ñun la ñu naan Sidil Issa léegi nag Pape booy wër xabru Seydina Issa Ruuhu Laay ci adduna ñëwal Cambérène duggee di nga gis mu ngi fii uh-huh. li ñuy dund li ñuy dund moo dàq mun naa fi toog fii ba suba ci waxtu yi di ko dundaat ndax euh, on apprend suñu xol yaa ngi sedd ñu ngi dund ci yàlla mais bu ma déggee Cheikh Mbacké li mu wax moom mooy ñun ñëpp ay laayeen lañu parce que auparavant da ngay foog ne laayeen benn communauté la bu bu à part mun ngaa nekk murit nekk laayeen nekk tijaan nekk laayeen d'après ce que j'ai compris léegi dama bëggoon xam euh, layen ndax dafa am wérd bu ñuy joxe parce que yeneen tarixa yi pour nga bokk si dafa am ay adhésion man dama bugg nekk laayee mhm. ah c'est vrai te damay dégg ci jotaay yow ñu ngi la tuddee gaynde Fatma sëñ gaynde Fatma mhm. loolu amul ci amul lu ko gën a taaru ci euh, yaxanal diine ci réew mi mhm. euh, damay gis ay tant yu ñuy wax ne laayeen la wala appel ma gis ñuy woy ay woyu euh, tijaan di woy wayu xaadar di woy woyu murit amul xaaj ak seen comment vous parvenez à épuiser euh, l'ensemble des des tarixa du Sénégal. waaw foo ñu xam lu tijaan di tekki foo ñu xam. li murid di tekki lu murid di tekki. wallaahi foo ñu xam lu xaadir di tekki foo ñu xam lu laayeen di tekki parce que baatu laayeen laayeen yu tuddee ñu ko seen bopp. nit ñi ñoo gis te booba la weer di tare ni nu seeyee ci yàlla ñu ni ahlullahi gaa yi yàlla yaa ngi nii ñu ni waa laayeen olof ni waa laayeen bu ñu demee di bu ñu solee suñu weex di zikkar ñu ni waa laay laayeen rek mhm. fa baat ba léegi nag xam nga man kër bu nekk mën na kaa duggoo wax mhm. xam nga lu tax uh-huh. cër ba yàlla def foofa dafa nekk ci sama biir xol ma nangu gëm ko di ko dund te li nga ma wax cosaan la sama turandoo du mën la dëkke sama maam limaam woote woote bi nit ay nit ñëw nañu di jël si wiir da mu ni yow dellu ci Sëriñ Tuubaa nga bokk yow delloo ko Cheikh Tidiane nga bokk moom moom mooy delloo na ay wallaahi laa dégg léegi nag sang boobu ki ka wutu di Seyna Issa am infitaa ouverture mm-hmm. iftitaa mm-hmm. ouverture bu yaatu ku doon xaritam bokkoon na ci sëñ Modou Moustapha Mbacke xaritam taawu Serigne Touba ndax ñoo bokk xilaafa bi léegi nag lu mu sànn xew ana Moodu Moustapha lay wax ana Moodu Moustapha Moodu ko am mu ngi yoof mu ngi dund yàlla na fi yàgg ah nga defe ne jeex na jeexul de mu ne gees sëñ Basiru Mbàkke mu tudde ko doom lépp fi ne jeex nga dem nag ca tiijaan ya bay Mansoor Seen mu mag mag sëñ Mansour mu mag mag wax ma sëñ Mansour borom daara ji mu mag mag mu tudd ko doom bay Mansoor Seen a ngi ci kër gi ma dëkk man yàlla na fi yàgg te am ah? mu ni gees nag ba yooyu wéri Abdou Khadir Jeylaani muy kadeer këram a ngi nii sama mag la mu tudd ko doom pour wax la wahdatul muslimina benn jullit ñi mhm. ne gees nag cër ya amoon ci diggante mag ñooñu sëñ Moodu Moustapha ñoom ñooñu Cambérène gii bu ñuy wax dañuy wax gaynde Fatma gaynde Fatma wala Cheikh Fatma sama turando koy yaayam Fatma Thioub Fatma Thioub am na ñaari turandoo yu am fii muy yaa Fatma Cuba yaayu Seyna Dia ak yaa Fatma Cuba yaayu njiit ngay Fatma il faut nit ñi xam relation yi mhm. lu rafet loolu nag Sëriñ Ablaay ñëw labbali ko ma gën a àdduna rek mu ne gaynde Fatma mu neex ma loolu nag man mii maay borom naas <laughs> macha allah ah sama turandoo bokk ci. ñëpp baax nañu waaye sama turandoo mooy jëmma joo xam ni bi muy dund dañu waroon dégg wahdatul muslimin muy benn dund ndax moom ci xam-xam ci alal daf ko bokk ak ñëpp amul woon xàjjat taxawul lislaam bi ba kenn yebul lislaam sama turandoo sëñ Ablaye tuddee ma ko ma sant ci yàlla ñu ni gees mu am doon tudd ko sëñ Abdou Lahad Mbacke xaritam ba nga xam dafa daan wax ni su ma dee ab mu al Abdoulaye yaay caabi bi saa yu la neexee tudd xanaa xamuloo ni sëñ Abdoulaye màggal bu mu saan jox xoolal mag ñi moom lañ daan jox kàddu sëñ Abdoulaye jàngale na adduna bi yëpp toog sëñ Abdoulaye Abdou Lahad a ngi ci biir ak njabootam ñuy diisoo seen kàddu ko ko war a yor booba saal baa ngi fees del mag ñi toog ca photo yi sëñ Abdoulaye ëgg si ni sëraax ci saal bi nuyoo ba yeggal ne fa ci suuf ñëpp jóg ne ko sëñ Ablaye photo yow lañ ko tegal jógal toog bu dee ak ci waay ñu jékki-jékki ba mag ña yeggalee ñu signalé sëñ Abdoulaye te ngi ñëw mu ñëw ñu ne asalaamaaleykum fa sëñ Ablaye toog ca suuf mu àgg toog ca wetu sëñ Ablaye ku toogan ca kaw wàcc xam nga sëñ Ablaye wax mhm. ne bëgg a yar koy gën a yar nanu nanu téye lool léegi nag sëñ Ablaye moomu yamu ca dal di tudd Cheikh Tidiane sama baay góor gu baax gi ki ci ruqa bi al maktum mu tudd ko doom muy sama rakk mu ngi fii ñu denc ci jàmm naay sëñ ma ah ma ah, Mansour bu xombal Mansour gay di kilifa gi mu tudde ko doom sama baay Ibou Sakho doon xaritam mu tudde ko doom Alaaji Ibou Sakho Alaaji Ibou Sakho kon bu ñuy wax benn jullit yi nii la léegi nag Tidiane ñun ñëpp ay tijaan lañ xam nga lu tax tijaan mooy ku peek lu araam te doo ko koo xam ne nag yaa ngi daw lu bon tijaan la mm-hmm. ee eh, mooy mirit murit murit mooy ku ku koo xam ne yàlla rekk ngay wër yàlla rekk la sax yàlla rekk la ñor murit nga ndax dégg ngeen ni mm-hmm. ku yàlla ñor murit nga alxaadir ku nangu dogal xaatir nga waaye allahim moo ëmb yëpp mhm. waaw moo ëmb yëpp ndax xoolal tur yëpp nag ñu ngi ko tënk ci laa ilaha illallah moo tax bàyyi laay wooteem li ko lal mooy laa ilaha illallah moo tax mu ne bokk leen baay mooy toog rambaaj diine gi di benn mbërum yàlla ma penko mbërum diine ma ca seen at ba benn jaamu leen bur yàlla bañ a juuyoo bu leen diine sëriñ si ñëw di fa diina libaas way dugg ba mu ne woyal ma abibu lay fa jiwaalo bu fekkee bennoo rek nga bëgg fasil déglu lii mu ni wayal ma abibu lay faji waalo wayu sëriñ bamba tagal ma allah ji maani si borom may bu yaa ci jamaana maase borom xel yu rafet yi di wàlli di way yàll tagga te moo waru jàmm dañoo xamul ni bay laay moo di borom ku bañ libaas bañ na ku la gën nit ku ñuul dafa mu naa bu doon nit ku xees mu jàpp ni Seydina Issa Ndiobo mooy borom Cambérène bi mu fi jógee nag maam Njoon moo ko wuutu foofu laa yem ak yow. ayca euh, kon mën nañu jàpp benn affaire lañu ñëwoon tey ngir xam mooy li ñuy rus a laajte te toog suñu kër yi léeg-léeg ñu am ci yenn commentaire ba bàkkaar boo xamul mbir da koy laajte yéen a ngi toogoon di ñu seetaan li ma jàpp te tënk ko mooy ñun ñëpp ay laayeen lañu comme noonu lañ leen di woowee ndax lépp allahu mooy waahidun mooy commencement mooy fin moo nëbbu moo feeñ te lépp a ngi fi li may ñaan nit ñi rek moom mooy li am Sénégal mu di diggante Yoff ak Cambérène balaa ko keneen di jóge feneen di ko jëriñoo na ko waa Sénégal jëriñoo ba noppi ak fu nit mën ci bàyyi ko nañu ñëw fii nii eh, ngir jëriñoo ko ñëw ziyaare gisanteeg njabootu Seydina Limaamu ñu ñaanal lañ ndax am na lu leen yàlla may te bu ñu sàgganee ñu toog ba naan ay su ma yëgoon fekk ne mu ngi fii suñu wet donc euh, loolu lañ leen indiloon tey ci encore plus gis ngeen jotaay bu rafet bii ngeen gis ay jigéen kese nekk fi di jàng alxuraan ci weeru koor la ñu nekk ngeen toog guddi seen kër yéen di ñu seetaan Euh, mbokku téléspectateurs yi seetaan première chaîne de télévision privée du Sénégal benn mbir rek laa bëgg Cheikh Mbacké laay jeexale mooy xam naa dama koy bett su ma ko laajee lan la la Seydina Limaamu Laay defal yow. defal leen te du sama baay sama nga soo jàng du may jàng ci période boobu sama bopp antunul woon limaamu mooy moomu moo antan ba ko woon doon li ci famille bi laa bokk mais man mu lëj sama bopp waaye njàng mi dem a dem a dem ndax nañu bàyyi xel xam-xam ak dégg boobu ah? al ilmu ak xikma ak fahmu bokk gis nga man nga jàng téere yëpp te xam dara mm-hmm. bari na fi am koo xam ni nag dafa ràññee yàlla moo def ci moom xikma wa man yuutal xikma faqat uutiya xayran kathir la yàlla wax ku ma ko jox rek may na la lépp am sagesse mhm. lu ne da ngay xam palaasam doomu sa wet fahmu nag lu nekk da nga koy dégg da dégg galal mhm. léegi nag question bi nga ma laaj ba mu lëjee ci sama boppam may daw di jàng ndekk ci mbir mi li ngay jàng bokkul ak li ci basangu mag mi bi fa sëñ tubaab bi coow li bari dafa ne woon lenn daal man leen koy am mu ne wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah mu ne bu xolit kuy wax laa ilaha illallah bu leen ko noonu da ngeen mandu ci moom dégg léegi nag comme que man léegi naa jaxasoo ma toog ak sama bàpp te sama papa xam nga gis ngeen taxawaayam sa ñablaay moo ko tudd ne Abdoulaye ma ci Abdoulaye liggéey ma si Abdoulaye ñëw taxaw nag yor jaasi la ilaha illallah tas woote ba tey mu nekk xalifa léegi lan mooy philosophe am wax jeex na jëfe fi def moo tax ñun wax ju bari waruñu léegi nag sa question bi ma laaj sama ya sama bàyyi na ko bàyyi est yow gëm nga nii lay lay nii moom mu ree ñu ma doom dañ ci toll mhm. tolloon naa ci moom dañ ci toll loolu ma waaye doom ci njëw mu ni bu ñëpp weddi woon bàyyi man ma des da yàgg xam nga da wax ni yéen nit bu fekkee ni bàyyi lay du nañu préparé suñuy mbalaat xam ni safara la ñu jëm nañu waajal waaye li wér mooy ndekete mooma man nag li ma gën a neex ci bàyyi waaj li ma gën a neex xam nga gars yi ñii ñii toog ko ci posé woon lu la gën a neex xam nga ñenn ñi lu ñu lay wax. Mhm. ñenn ñi dañ naan ñun daal lu ñu gën a neex ci bàyyi mooy bi mun a indee ci piir ñi ci wetu géej gi. man de loolu neex na ma ci man. Ah, man moom euh, wax naa la wax naa la ko téléphone defe naa. waaw nee naa la xaw ma ku xamul Seydina Limaamu waaye boo xoolee misaal rek. Uh-huh. saa yu ma jugee ci biir dëkk bi ma dem concert ci benn dëkk wala may ñibbisi. Uh-huh. bu ma jugee Ndakaaru ma naan non neexul ba neexul waaye Seydina Limaamu mën nga koo ëppale lu ne waaye doo ko ëppaleem péex. Uh-huh. xaw ma ku ko xamul waaye ku ko topp mu woon la yoon aljanna ndax fi mu dëkk yëpp. fi mu dëkk yëpp ci booru géej la dafa feet <laughs> xam nga kon loolu yow neex na <laughs> macha allah waaye ñenn ñi boo leen laajee <laughs> uh-huh. ne leen lu leen gën a neex ci limaam ñoom dañ lay wax ni bi mu nu bi mu dindee suñuy sant nee nu sant laay waaw mm-hmm. yow xam nga ni adduna ngi tas ndax wàllu kast maa la ko wax wàllu askan adduna ngi yëngu mm-hmm. waaye fii xoolal boo fi duggee laay laay rek la amul géwël amul géer amul tëgg amul amul pël amul njaago xoolal ñëpp ñoo yem moo tax bi nga ma waxee léegi ne maa ngi jéggalu ci toog bi ma toog ci kaw dafa xaw diis ci ñun wallaahi ndax ñun nii lañu bindoo ñu nag ñii ñoo jaxasoo ñoo bokk suñu lépp lenn moonu yeew muy laa ilaha illallah kon nag koo ci laaj rek am na version bu muy yox ni moom lii moo ko neex ci bàyyi laay waaye Cheikh Mbacke ak Idrissa ak sama rakk ji as njaay ak sama rakk ji may mun a caw ah xam nga ñun lu ñu gën a neex li bàyyi lay ni mooy buum xam nga lu tax mm-hmm. bu ñëwoon ni may Ibrahima échec am bu ñëwoon ni may Moussa échec am ku mu mënoon ta rek échec am waaye bi mu nii mooy Muhammadu mooy ci gën ñëpp yàlla dogal ñu féetewoo ko bi nu ko féetewoo nag taxul ñu rëy déedéet xoolal sàmm sa mbubba sa yàq sa ca biir sàmm jur nga dégg sàmm sa yàq sa mbuba sa ca biir jur bàyyi laay alayhi salaam ak njabootam dama wax ni koo ci mu a gis moo moytul di nga laaj ne ana xalifa ndax modeste macha kon nag man li ma gën a neex lii rekk la bëgg nañ la yónnee sopp nañ la yónnee ndax yaay Seydunaa Oh. Mama bàyyi yëpp ñu leen di nuyu di leen baalu ak suñu bàyyi yëpp suñu bàyyi yëpp bu ma limee tuum sama bàyyi Mouhamadou Mokhtar moom sama man ma njoon ku baax koogu waaye ziar sama bàyyi Mouhamadou Bachir góor gu tedd googu naka noonu nuyu ñun ñëpp di ziar suñu bàyyi Mouhamadou Amin ni yàlla dogal tey yenn mag ñi dal ci kawam mu taxaw noonu koy ñaanal yàlla na waaye di ziar di ñaanal suñu bàyyi maam libaas góor bu baax bu tëdd ko borom xam-xam bu yiw bi waaye di ziar nag suñu bàyyi bu maandu imaam Mouhamadul mu sama maam Babacar di soppe ñëpp ñu ngi ko ziar waaye di ziar suñu bàyyi maam Alassane Laye nga mooy caatu son maam Babacar Laye ah, di ziar nag suñu mag yëpp. jiital ci Seydou Thiaw sama bayran teg ci Seydina Issa mi nga xamante ni mooy yor organisation appel di tawu Cheikh Abdoullah ziar rakkam yépp nag waaye mënuma teg sama wax te nuyu ma sama seet ziar bay ñuy Thiaw laay ndax nit ku ne da am seet moom la yàlla dogal mu doon sama seet ah, ñëpp samay mag la di nuyu nag lañu Muxtaar mbooleem kuy ahlulaay foo mën a nekk ci àdduna bitim réew ak ci biir réew mi maa ngi lay nuyu di la baal wax di la ñaanal yal yàlla gën a sa loolu waaye di nuyu jullit yëpp fu mën a nekk waaye di ci jiital suñuy wéyjur nga xam ni këru diine yi ñoom ñoo ko ŋànk muy xalifa yi maa ngi leen di ñaanal seen doom ju doye di ji mu ñaan yéen bi ngeen yéenu yàlla na ko yàlla woyofal suñu réew mii far si di damay wax ni bu ñu bëggee stabilité diine mooy jiitu rek lu ci topp topp ci kon nag man noonu laa gisee te alhamdulilahi rabbil alamin waaye ñaanal suñu jiitu réew président de la république yàlla na yenam woyof ci li ko yàlla teg waaye ziar nag koo xam ni dafa sori ci man sës ci man lu ma ne mu nekk moo tax sama lépp moo ko moom biig rek laa koy wax ne jëlal sa yëf ndax yaa ko moom nit am na lu du ko ñett daara jii daara jii ba ñu ko sos léegi am na ñaar fukki at ak juróom-ñaar yàlla di ko barkeel bàyyi raan mu baax ma ca bàyyi Seydi Thiaw la woon bàyyi mu baax ma yox ko bëggoon ko lool feebar na sax ñu jël chaise bu doxee ñetti pas ñu teg chaise bi mu toog ba ni muy ëgsee ci bureau bi ngir gis di rek waaye kon sëñ Ablaay anamu xam nga ni idd daana ñëw toog mu jugi nag mu jël rakkam ja soppeem ba Chérif al Ousseynou la nekk ma demal Chérif Ousseynou nag yor mbir yi ginnaaw sëgi nag sama bàyyi Mouhamadou Lamine ñoom di ko taawu ak bàyyi maam libaas mag ñi waaye sama rakk ji di Idriss Palsi day rakk joo xam ni am na lu bu ma ko waxee sax li ñu naan cat mën na kaa toog waaye dama bëgg nga xam ni cat ku cate lay dal ah ku cate lay dal waaye moom mii taxawaayam ci diini gi taxawaay ci njaboot gi gémmiñ mënu ko wax lii daf ci def xolam daf ci léppam parce que dafa xam ni alalam la li ma gën a neex ci moom yàlla dafa génn ci moom kii ñaan moom lu way ne ci lu baax yéene na la nga teel kon nag ku am rakk ju mel nii mu nekk ci sa macha allah liggéey bi ngay gis moom mii la du man de moom mii la yéen xam ngeen ci dara ah te bëggul feeñ kon nag maa ngi koy gërëm te lii bëgg naa waa adduna bépp xam ko wax ni Idrissa mii sama rakka ji yàlla na teeri yàlla na teeri yàlla na teeri di gërëm nag njaboot gi nga gis ñu teew gis nga leen maa ngi leen di gërëm di leen sant fu ngeen mën a jóge waaye di ñaan tari bi ñu dëkk man tari bi ñu dëkk man muy le na dimanche bi di ñëw ah incha allah waaye invité naa la yow d'honneur laa la jox dañu lay invité di la wax nii waa adduna bi bu ma sañoon day ñëpp fekkee bis bi ndax bis bu ne am na yuy xew ca biir yoo xam ne ku mu rëcc di nga ko bëgg a dabu mu téene bis bi at mu jot day gën a yokk waaye ren dafa am ndigal luñ ci jot muy ñaan ñaan ñaan ma baamu ko ndax bu ñu xëyee neuf dina fekk njaboot gi teew neuf heures demi toog nañu dañuy tàmbali kaamil kaamil boobu bu jeexee dañuy génn course yi def dog xam ngeen loolu musulaan ñu def ay dog nag tëjee ak yaasin naka noonu nag def duwaawul xalaas dafa yànd ak sarax mu jëm ci ñi ko moom ñu ñaanal sunu bopp ndax réew mi soxla na ñaan ñun ñii soxla nañu ñaan moo tax maa ngi wax ni ku man donte la da ngay raam na nga ñëw ku feebar ñëwal yàlla mën na faj suñuy aajo ci barke ñaan lii daal laa doon jàllale di gërëm nag waa 2STV ci seen taxawaay bu rafet di la gërëm yow Pape Sidi ah ndax ñu ngi lay suivre ñu ngi lay suivre bu baax ci dal bi ci yiw bi ah ci xam sa métier taxaw ko ndax journaliste d'abord modeste daf ci baax xam yi sensible ak yi sensible nga xam ni boo yëkkatee sa kaddu mu doon kaddu buy defar waaye am na kàddu goo xam ne bu génnee rek mën na jaxase àdduna yow nag yàlla suturaal na la ci te sa sa sa émission ay ree ak kaf nga koy booleel ba mu jeex kon yal na la yàlla sàmm di dénk nag ki moom télé bi sunu njaboot yi nga xam ni dafa nekk ak yéen te turam saa yu génnee laayeen yëpp a yëkk bu ñu nee libaas lay ndiir xol yëpp daal di sedd kon libaas yàlla na nga teer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xanaa li ñuy def rek moom mooy euh, sant leen di leen gërëm mboolem équipe technique bi nga xam ne àndoon naag ñoom ñëw fii ci Cambérène ngir fekk fi Cheikh Mbacké Laye nga xam ne fasaana am na diplomatie am na pédagogie mën na la jàngal te doo gaañu. wattandiku leen Sénégal nag wattandiku leen surtout xale yi nekk ci réseau sociaux yi wattandiku leen di diingat ndax loo xamul da nga cay maandu macha allah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ko gërëm bu baax di ko sant ci disponibilité bi ndax bi ñu ko woowee daf ñu ne bés sàngam ñëw leen ñu def ko ndax am na loo xam ne bu ko Sénégal yëpp tegee bët muy luy yokk diine ñun duñu def lu dul kontaan ci te mën ko wan sénégalais ak fu ñu mënti nekk ci àdduna bi ñu xam ne am na lu am Cambérène am na lu am Yoff te bu leen xaar kenn di leen ci jiitu ñëw leen jëlal seen bopp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm beneen numéro encore plus jaa ngeen muhammadin sayyidul arabi wal ajam allahumma salli ala muhammadin sayyidul arabi اللهم صل مصطفى على محمد سيد الرسائل والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد